lay nuyu. maa ngi leen di fay. tur bi naka la. man Ismaël Seck gis nañ ne waa FRAPP dañoo génn ne dañuy dem jëli Ousmane Sonko fële ca kër gam génne ko ci situation yi léegi ñoo bëggoon a xam sa sa gis-gis ci loolu. ah wax dëgg yàlla loolu moom mënuma la ci wax lu bëri. Euh, nen bàyyi justice bi def liggéeyam ñun nen yem si suñu opinion rek jeex ci. lan mooy. ñun dëkk bi ah yoon la de yoon moo fi am te je crois que dañ ko euh, matal Ousmane Sonko nag bon jëli ko nag aussi ce sera très difficile ndaxte suñu bañee nag dëkk bi xaw a yëngu nag euh, neen bàyyi affaire bi bàyyi cours bi daw ndànk te xam exactement ni ñuy def parce que xale yi aussi ci mel noonu la ñu mën a profito yàq dëkk bi te après dañuy ne kii la diw la wala diw la balaa loolu di am ñu seef xool xalaat def ndànk ndaxte aussi gis neen fi presse bi liñ ci def xam nga lu yëpp aussi wax wone ñu ne la noon léegi dootoo defati lii ah dafay am lu muy nuru xam nga mais Sénégal am na kilifa kilifa bi nag xam neen ko yàlla moo ñu ko moo ñu ko baaxee léegi la ca des ah yàlla xam mais si léegi su fekkee ne ñii dañu bëgg nag euh, jaay doole nag loolu moom mënul nekk presse baa ngi nii moom mooy seen liggéey mooy wane xam le xamal nañu li war a xew ci dëkk ci dëkk bi yëpp mais bu fekkee ne mais bu fekkee ne ñoom ku wax lenn wala ku wane da ñu tëj lan ah foog naa ne léegi ñu tëj ñun ñëpp kenn dootul déggati dagade. waaw gis nañ ne signal Walfadjri dañ koo daal di coupé. ah mais loolu non loolu moom mun mun man man mun xaw ma ci benn information mais dama koy dama koy dama koy ñaawlu parce que c'est pas normal euh, benn presse ku mel ni Walfadjri yéen xam ngeen ni Walfadjri du du tey ñun ñëpp màggoon nañ dañu màgg ak ak Walfadjri Walfadjri démb la woon. donc tay buñ ko tejé ci ben affaire bu ndaw lolu ah dana ma jaaxal gaay bala ñuy tej ay ay ki nen xolaat bu baax ndax tay euh, demb abdou diouf la won xam nga bëgg demb abdou diouf la won demb ablay wat tay macky sall mo fi nek te mo fi nek ba légui xam nga donc nak ah il faut que ñi ñi nak di ñu jappalé ci lolu c'est pas parce que ki di wax na li wala def na li rek ñu jël rek après euh, indi indi indi ko ay jafé jafé non non presse dañ ko wara bay et c'est c'est la presse

loolu buñ la daanale yaa daanal sa bopp presse moom dañ ko war a bàyyi mu def liggéeyam waaw waruñ ko wax dara la muy sol dem dem leen dans les grandes guerres leen di xool foofu journalistes yi dañ leen di bàyyi ñu def seen liggéey ñuy xamal informel ñii ñi ne leen ah lii de lii ak lii moo am xam nga mais bu fekkee ne da nga bëgg a presse presse bi man je man yàgg naa sax di di dégg bon ne gars yi way presse bi lii presse bi laa ah journaliste bi woo nañ ko parce que dafa wax lii journaliste bi non si il a dit ça c'est concret on le laisse passer mais si c'est pas concret il va payer les pots cassés loolu la loolu rek lañ laal ci mën a wax soxna si. ñoo ngi lay jaajëfal. merci.